mbokki internet téléspectateurs yi nga xam ni yéenay seetaan euh, NCTV Sénégal ñu ngi leen di nii di wax ngeen dal ak jàmm yow mi di seetaan sunu vidéo bu fekkee abonné go ñu ngi lay ñaan nga abonné ci chaîne bi activé ko de notification bi ndax vidéo bu ñu dugal ngeen mën ko gaaw jot mbokki tey làmb ju rëy moo am fële ca arène nationale mu dox diggante Sarko bu Grand Yoff Sarko bu nee Sarko rek euh, moom mooy borom Grand Yoff loolu moom ñëpp xam nañ ko waaye t Ada Fass borom Fass waaye Ada Fass borom Ndakaaru comme ñi ànd ak moom ñu koy waxee. muy ñaari mbër yoo xam ne daal euh, ñoom ñaar ñëpp ku nekk làmb am na ci yow yaakaar Sarko nag moom moo féete ak mag Sarko moo féete mag bu ndee xool làmb ji mag ak xale Sarko mooy mooy mag Ada Fass mooy xale ci nin ko mën a kiyee donte ñoom ñaar ay naataango lan waaye tamit làmb boole na leen muy làmb joo xam ne nag dafa am enjeu trop parce que ñoom ñaar seen signature bi ñu doon def fii DTV rek coow lu bëree bëri moo ca euh, jóg man amoonte ay jàppante yoo xam ne doxoon na seen diggante sax ba waa Fass euh, bi. kon jamono ji ba léegi mbaxana Sarko bi mi ngi faas waa faas di téye maanaam tey bu làmb ji jeexee ñoom bu ñu daanee wala Sarko daan leen xëy na du ñàkk ñoom ñu delloo Sarko mbaxanaam waaye mbaxanaam moom ñu këfoon métti woon na lool te jii nag seen war a ñëw nag leeral loolu kii di Ada Fass dafa prouvé ñëw lu ko war a mën a boole ak kii di Sarko Sarko nag yàgg na ci làmb lool moom nag bokk na ci mën naa ne moom ñoom Sa Thiès ñoom la débuté ndooloon daal moom boo kon moom moo jiitu Ada Fass ci làmb moom nag amoon na final boo xam ne doon na ko joué ginnaaw bu mu ñàkkee final boobu nag xëy na peut-être loolu moo ko xaw jural sax jafe-jafe yi mu am ci wàllu làmb mooy ginnaaw bi nga xam ne Balla Gaye numéro 2 indi woon na rakkam bi di Sa Thiès moom Modou Lo indi woon ko làmbam jooju doxoon digganteem ak Sa Thiès ca Sa Thiès daanoon ko ca euh, jël bu rëy ba loolu daal euh, ci la Sarko jógee xaw na lu waye di nii ba tax booy yi classe ak Ada Fass gi ñëw ñemee ko di ko dëkkoog yooyu noonu waaye Ada moom dafa def palmarès bu bu riis riis Ada Fass moom daan na Yéri 2 euh, daan na tamit Farbu Diar daan ki nga xam ne mooy Dorma Ardo Ardo Real caatu ngéwél bébé bismi ak ki eh, Jokkel tamit Ada Fass daan na ko Ada Fass mii tamit daan na Tapha Mbeur kon Ada Fass daan na ay champion yu mag a mag kon loolu moo ko waral te jii mu war a mën a ñëw daje ak champion bu mel ni eh, kii di Sarko waaye Ada Fass nag moom ñaari defe yi la am muy caatu baay pàcce ak kii di eh, Ondulëfu ñoom ñaar ñi ñoo daan kii di Ada mu nekk nag mbëru réew ndax Ada moom nekkul ni. waa Fass rek ñoom ñoo koy supporté waaye maanaam Ndakaaru yëpp moom dafa bari ay supporters xam nga loolu dafay am ci làmb dafay am bëri yoo xam ni danoo bëri ay euh, supporters ku ci mel ni Siteu Balla Gaye numéro 2 Modou loolu tey jii dafa dafa ci làmb ji ay mbër yoo xam ne maanaam mbëru réew leen bu ñu jógee rek ñu bari ñoo jóg euh, topp leen Ada Fass nag moom boo xoolee euh, ci loolu la bokk donte moom nekkagul sax mbër mu mag waaye ku am mbooloo la moom nag moom nee na kenn mooy idolam ci làmb muy sa Lagros bu faas la Lagros moom mi nekk igri Fass ñu namm ko loolu gëj koo gis ci arène bi Ada Fass daal nee na moom Lagros mooy idélam kon daal tey ji làmb ju neex man nan koo xaar fële ca nationale làmb ji nag ñoom ñaar ñëpp comme ni nga ko waxee rek am na enjeu ki nga xamante ni mooy Sarko gagné mooy tax moom mu gën a li nga xamante ni mooy place am parce que dégg naa benn bu dëkk Grand moom nee na Sarko bis bu ko Ada Fass daanee du ñëw fi nga xamante ni mooy Grand Yoff kon Sarko am na lu koy xaar loolu moom war na see bàyyi xel bu baax a baax a ni moom bis bu ko booy bi daanee moom moom moom moom eh, maanaam day dem xoree comme ni ko gars yi waxee day dem xoree Ada Fass nag moom bu ko daanee moom dafay gën a lancé wu maanaam du dugg sax cour de grand comme ni ko gars yi waxee cour de mooy ñoom Balla Gaye numéro 2 Boy Niang affaire noonu mais moom tey jii moom Boy Niang dugg na cour de cour de grand comme ni gars yi waxee mais tey jii Sarko moom Ada Fass bu ko daanee dafay dem fekk ñoom Sa Thiès ay rëg-rëg ñoom ñaar ku ci daan Ada Fass da lay jël maanaam day daal di lancé wu Zarko nag moom bu daanoo fii moom day dem xoree moom kon nag moom daan rek moom moo ko arrangé bu baax a baax a baax muy ñoom ñaar ñëpp kon lamb ji am na importance si ñoom bu baax a baax kon jàpp naa ni kenn du ko fooyee ci ñoom ñaar ñëpp waaw kon nag amateur yi tey ji war na mën a dund làmb ju neex ñuy ñaan nag ñu bëree ko ci euh, fair play mu bañ a am violence comme jàkkaarloo bi nga xam ne doon na dox seen diggante fële ca 2 yi mu amoon ay jàppante euh, diggante waa farandooy ki di Zarko farandooy Ada Fass ba juróon ay jàppante ba police ñëw sa dox ca heureusement kenn gaañu ca waaye loolu tey ji yàlla bu mu am ci làmb ji la wax làmb ji nag ñu ngi naan euh, kenn du ko jàllale ci télé yi euh, PPV rek lañ ko mën a seetaane ku ci mel ni seen affiche point comme loolu nag euh, war nañ cee waxaat ndax loolu Modou Mbaye waxoon na ko Modou Mbaye doom Bécaye Mbaye bi nee woon na maanaam PPV bokk na ci liy yàq làmb loolu dafa am solo bu baax a baax gisoo làmb bi démb ji ñëpp dañ doon PPV lañ koy seetaane mais à parage ginnaaw bi mi ngi doon jàll fi nga xam ne mooy Sen jombul nag euh, promoteurs yi ak waa CNG parce que ñoom xay na peut ñoom bu ñu koy jaay ñoom euh, ci pay bi ci leen di gën a amee xaalis waaye bu ñu xoolee li leen di gën a may xaalis ba yàq li nga xamante ni mooy làmb ji ba làmb melitul na mel loolu du amati parce que làmb pour mu mën a neex il faut amateur di ko bëggee di ko xaar ñoom it dañoo am ciy bëggal ñoom amateurs yi kon bu ko dee jënd per view ca arrangé wu loolu dafay dafay yàq li nga xamante ni mooy làmb ji di ko delloo ginnaaw comme ni ko moo Mbaye waxee. donc tey daal taxaw seetlu bi loolu loon euh, ñaari mbër yu bëri diggante Ada Fass ak Zarko que le meilleur gagne koy waxee rek ku gagné lamb ji du dem fenn ndam li fii lay toog Sénégal gi rawatina Ndakaaru gi nga xam ni euh, boo nee Dakar Grand Yoff fa ngi ci biir Fass a ngi ci biir kon ndam li Dakar gi lay des incha allah yàlla nañu ko bëree ci jàmm ak salaam jaa ngeen jëf.